woon ci campagne bi euh, la réduction des comptes lepp lu way lekkoon euh, te amaana ne waroo ko lekk nga dal di koy li na xam ne mu indi wat nga sikafa gay askan wi alors euh, la réduction des comptes am ñenn ñu ko tuddé exactement le règlement des comptes est-ce que tamit ñaari terme yu ñu mel doo leen risqué peut-être pour bañ ko li na xam ne mu discerner <laughs> mais xam nga ñom xam nga xam nga li may wax rek sama gaay dañu tiit. mais mais reddition des comptes sax amagul parce que jàpp naa ni gouvernement bi dossiers yi wooguñ ci kenn. Hmm. mais nag ñi ngi ñoom nag ñoom ñi ngi yuuxu ñoom ndax keroog dégg naa Omar yu euh, RTS muy muy wax waxi règlement de compte te boo xoolee gouvernement bi bañ ko bañ ko tegeeg léegi ak euh, biñ publier rapport yi ak léegi tey par exemple gouvernement mag euh, bu benn boo ko yaakaar ñoom ñoom dañoo toog ci pouvoir bi rek. dressé seen liste vingt cinq personne rek commencé di woote. Hmm. xam nga loolu moom kenn du ni loolu moom du du chasse à l'homme toog rek ñëw dressé sa sa liste vingt cinq personne gouvernement bi nag ñoom defuñ noonu ñoom dressé wuñ liste perso ay ay liste de personnes waxuñ ni waxuñ ni kenn ñii la ñuy topp ñoom ay rapport lañ jël li leen yoon may lañ def ay rapport lañ jël dem jébbal ko euh, procureur c'est simple loolu rek la topp fi kenn defuñ fi sa à l'homme Je fi euh, règlement de compte. Ousmane Sonko ni nous koy waxee que ni euh, rapport yaa table et tant d'autres et tant d'autres là nous euh, voulons dañuy sous-entendre par là que ni vous préparez quelque chose allant dans ce sens exactement. non en tant que premier ministre du Sénégal le rapport yi nekkul ci table un rapport yi fan lay mais là on parle de la séparation des pouvoirs. Oui, mais je suis parce que en tant que premier ministre du Sénégal li Sénégal di li yi di jaawale bu njëkk dañ doon am premier ministre yoo xamante ni seen ay pouvoir dañ koo confisqué woon téye ko lépp ñu centraliser ko ci ci ci ci ci ci président de la république te tey wax nga ko sànq euh, séparation des pouvoirs kay bu amee ñu war a mën a jox premier ministre doole bi nga xamante ni moom la yelloo ba nga xamante ni am na rapport yoo xam sax man jàpp naa ne war naa mën a yem ci premier ministre ba ñu yegg sax ci président. bu ni euh, rupture rek la ñuy woote dañ doon wax naan dañoo bëgg changement loolu loolu kay bokk na ci rupture yi bokk na ci changement yi premier ministre boo xamante nii dañ koy jox gëddaam donc est-ce que président ne risque pas de se fondre exactement sur l'ombre euh, du PM non non non non non loolu moom euh, wax yi jaxase la rek gars yi yi nga xam dañoo bëgg a jaxase hmm. le premier ministre et le président ñoom ñooy wax loolu mais le bon le premier ministre mi ngi ci ay prérogative am président de la république mi ngi ci ay prérogative am hmm. kenn yà yàqalul kenn dara da c'est que kay sénégalais yi dañoo gis dañoo gis lu bees rek loo xamante ni moo war na am te amul woon muy muy un premier ministre boo xamante ni dañ koo jox xam jox ko gëddam ba pare tamit jox ko doole ji nga xamante ni moom la yellool loolu loolu rek la quoi mais nekkul nii bon premier ministre bi président day fondre si si ombre premier ministre premier ministre day làq président non non non tamit dañoo dañoo tàmmoon a gis ay président yoo xamante ni mën comme comme ni ñu koy waxee rek comme ay yàlla yu ndaw. Hmm. président boo xam ne yow lépp yaa koy gérer. te nag dëgg fa yàlla président ak doole ju mënti am. mais fii c'est évident gis nañ contexte bi fii c'est jiitalee Diomaye Diakhar Faye le président moral euh, nii rek la mën a demee. non xam nga gis nga bu fekkante ne woon dañoo dañoo nekkoon ci réew moo xamante ni dafa tegu ci yoon kon amaana tey président Ousmane Sonko moom mooy nekk président de la république parce li mu waroon a def pour nekk président def na ko mais ki fi nekkoon président moom moo bëggul woon Ousmane Sonko bokk ci ay élections yi amaan tey suñu bàyyi Ousmane Sonko mu bokk ci ay élections moom dana nekk président. mais bàyyiwuñ ko mu bokk ci ay ci ci ay élections xañ nañ ko xañ nañ ko président boobu si le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye mi nga xamante ni moom la le président Ousmane Sonko tànnoon. Sénégalais yëpp dem répondre votel ko. Mm, mm, mm. moom tamit mu delloo njukkal le le premier ministre Ousmane Sonko def ko premier ministre am. te wax dëgg yàlla bi mu ko defee premier ministre aussi mu nekk premier ministre boo xamante ni. leadership leadership leadership am xam nga gars yi dañuy wax eh, naan. ñukkal la ah? waaw ah. noonu lañ ko mën a waxee parce que tamit xam nga gaay yi dañuy wax naan ay non président Ousmane Sonko doole ji moom dafa ëpp doole ji moom dafa ëpp président Ousmane Sonko doole ji mu am ay texte mayu ko ko mais leadership am moo ko ko may tey président man Sonko boo boo boo xoolee sax am na ñoo xam sax dañ. mom lañuy gëna suivre sax que que le président mais loolu mais leadership la bu bu bu ko bu ko yalla defal naka gaay nangu alors euh, ba tey ñu daal di desuwaat si li nga xamné ne di rapport yi récemment ñu né euh, le juge sera saisi exactement d'après le ministre de la justice ki nga xamné comme que di Ousmane Diagne mm-hmm. euh, le juge sera saisi dinañ ko daal di saisir pour mu daal di war a a yenn say angle yu bari mais tamit leneen si li nga xam nekk moo rapport yi mooy euh, IGE gis ngeen ki nga xam nekk moo le président mu daal jàpp ne dina génne li nga xam nekk moo di lum liggéey euh, si taal bi et tant d'autres et tant d'autres mais euh, quelle suite donner justement à ces rapports dañuy mën nañ assister à des convocations et des arrestations nga jàpp ni. ah mais bien sûr ay rap xam nga rapport li moo dafa leer. te li te li rapport yi wax yaakaar naa Sénégalais yëpp ko gis. Hmm. Sénégalais yëpp ko lire. Hmm. rapport yi li mu wax dafa leer ay fee la nit ñi dafa am lu ñu def loolu ñu def nag il faut ñu dem il ñu dem répondre ci parce que am réew noonu lay doxe gis nga euh, reddition des comptes sénégalais yëpp yëpp yëpp ko doon kalaame sénégalais yëpp bëgg ñu def reddition des comptes am na ci sénégalais yoo xamante ni sax def reddition des comptes moo leen gënal wàññi dund gi. ñu ah, leeral mbir yi non ñu leeral mbir yi parce que nag nit ñi li euh, ñu fi def dafa bëri yow ñaata milliards ngay dégg. ci rapport yi. IG moo xam IGE la moo xam Cour des comptes moo xam OFNAC. yenn si ay procès hmm? yañ xalaat ñu déclarer ko exactement ku si le procès Prodac et tant d'autres et tant d'autres. ah bien sûr sénégalais yi bëgg nañoo xam parce que tamit mënuñ mënuñu ni vingt neuf milliards vingt neuf milliards li ci sénégalais yi mën dafa bëri vingt neuf milliards mën na tabax ay ay hôpitaux. 29 milliards mën na fay ay bourse ay étudiants mën na lu ne mën mën na lu nekk loolu xaalisu sénégalais yi la te alaakulli àll nag xaalisu sénégalais yi képp ko xamante ni da nga koo détourné da nga ko war a leeral ba mu leer hmm. da nga ko war a goqi kon kon kon sénégalais yu bëree bëri loolu la ñuy xaar ñu def ñu def ay procès teg ra teg euh, mbir yi mu leer sénégalais yëpp xam képp koo xam ne jëloo nga xaalisu Sénégal nga delloo ko alors euh, mais bàcc ñi japp ni dafa xaw a exactement li nga xamné que modi track traque beeg poursuite beeg allant d'autres euh, euh, entre autres entre autres ñu bari ñu don xaar que ni ben efficacité beaucoup plus li nga xamné que modi rentable à la dans sens yéen ban tontu ngeen ci ene exactement euh pour ñu japp ni dafa yéex. wa lool rek nak moo lay moo lay wan ni nekkuñ ci règlement de compte. ok dañ jël sen temps. di di lool rek gis nga gis nga yeexaay bobu Sénégalais yi observé. ba ni noo gars yi dañ leen war a woo dafa yéex loolu rek war naa mën a firndeel ni ñii nekkuñ ci ay règlement de compte parce que bu ñu nekkoon ci ay règlement de règlement automatiquement bi bi ñu toogee si pouvoir bi rek dañuy commencé dresser seen liste comme ni ko ñee defee woon di woote mais dañ dañ dañoo nekk nag di di gëstu ak di saytu pour nga xamante ni képp koo xamante ni woo nañ la boo lëggee kenn du ni ñii kat ah hmm. règlement de compte lañ doon parce que bëgg nañ nag képp ku ñu woo li ñu la wooyee ñu teg ko fu leer

Euh, mu tal leen premier mandat exactement que ce soit euh, réalisation euh, sur le plan matériel ou immatériel bi gën matériel bi. non non xam nga le président Ousmane Sonko non le président Macky Sall nag moom. a beaucoup de bokkut ak euh, le président Bassirou Diomaye Faye waaw parce que président Macky Sall moom nit ku nit kuy fayantoo la. moom ku ne gis na bimu mu ci rew mi lim fi nekkoon fayanto président Bassirou Diomaye Fay dégg nga interview bimu mujjé mujjee bi mu ci 100 jours moom ne nekkul ci logique gu fayantoo déjà moom li nga xamante ni sax moom lañ ko def parce que moom tam dañ koo tooñ dañ koo jël arrêté ko injustement dugal ko kaso te nee na képp koo xamante ni moom li nga xamante ni moom c'est moom lañ ko def à sa propre personne moom loolu baale na ko. Hmm. le président Ousmane tamit ci sens boobu la nekk moom tamit nee na koo xamante ni da nga ko tooñ da ko tooñ tooñ boo xamante ni ci moom nga ko jëmale moom baale na ko mais li nga xamante ni nag moom. kenn mënu koo baale mooy li nga xamante ni moom mooy réduction des comptes bi li nga xamante ni moom lañ def ci réew mi te loolu loolu président mënu koo baale premier ministre mënu koo baale parce mm. que loolu affaire sénégalais yi la affaire askan bi la mm. askan bi rek ñoo ko mën a baale mais ñoom mënuñu koo baale loolu moo tax ñoom nekkuñ ci dynamique boobu ay ay ay réduction des comptes ba nga xamante ni à fin dañ naan non la ñii seen bilan jàppee lañ fi lañ fi nekkoon mm. ak ak yeneen yeneen man jàpp naa ni loolu moom du leen dal incha allah parce que tamit bon gis nga ñom ci logique biñ nek ci logique liguey lañ nek mais pas ay logique euh règlement de compte. Hmm.